sion détenu yu bëri yi dafa dugg ci lu ñuy wax ne dañu war a dalal climat social ak politique bi maanaam fitna bi nga xam ne mi ngi juddu fan yi ñuy waajale élection présidentielle 2024 muy ci loo xam ne dañ say jafandu waaye loolu mënta nëbb xar kanamu kaso bi nga xamante ne du xar kanamu lu nit mën a dund seede yi nga xamante ne ñu génne kaso def nañu ko ak seen ay waajur wane ne si yan anam la ñu leen teye woon kaso ak niñ leen daal di arrêté ñu daal di leen arrêté si ay conditions yoo xamante ne dañ leen di pamte pamte wala mu doon ay motifs yoo xam ne taxawul promiscuité bu ñu fay dund maanaam ni mu xatee dafay màndargaal anam yi ñu leen doon dencee foofu muy ay conditions yu jéggi doyo mu leen di jural nag ay jafe-jafe seen wàllum xel seen nekkin ci wàllum société bi ak sax ay jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram yoo xamante ne kenn mënu ko xalaat bu ñu xoolee sax li mu xale yi génn ci kaso bi day wane ne kaso yi feesoon nañu torop si biir kaso bi ñuy tere sax nga feebar ni ko benn artiste musicien daal di woon seede ay prisonniers yu bëri di wax si yan anam la ñu leen téye ñenn ñi dañu doon fi ñuy liggéey ñenn ñi doon jàngi ñeneen ñi ñoom doon doxantu rek muy loo xam ne ku ne sañ nga ko waaye ñeneen ñi dañu jàpp ne dañu bokk sax si kuréelu patriote ñuy nettal nag ay torture yoo xam ne doon leen ko doon def maanaam di leen teg ay fitna ak i métital yu tar si seen wàllu yaram ba si sax torture sociale loolee yëpp prisonniers yi libre ñoo ko daal di dénoncer nettali ko tey jii nag ñi ngi noyyi eeru liberté ñu génn leen ci kaso waaye mu nekk génn boo xamante ne liberté provisoire la ndax kat saa su nekk jàpp nañ ne mën nañ delluwaat kaso ça dépend rek vie politique bi di demee ba tax na sax njaboot gu bëri ak ñi nga xam ne dañ leen génn kaso delluwaat ndungu sin daanaka génnul seen xel ndax saa su ne mën nañ leen fa delloo xale yooyu nag ñu is moo dina ay victime lañu yu daful dara ci jafe-jafe yi am ci wàllum politique